bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammadin al amin wa alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu topp ci seen mk tv muqaddamatul xidma tv télé bi bàyyi ko fii ci biir jumaay Tuubaa ji ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndorkeel bu baax a baax a baax ci weeru tedd yi ñu nekk euh, dellusiwaat nañu yéen ci jataay yi nga xam ne dañ ko jagleel yonent bi sallallahu taala alayhi wa muy mboorum yonent bi muy am weer bu ne la cinq bu ne euh, ci MK TV muqaddamatul xidma TV waxtaan wi nag lépp ñu jagleeloon ko dundug yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi jataay bi mooy juróom-ñaareelu jataay bi ci jataay yi lañu ñu génn tàmbale woon nañ ci aw askanam wax ci aw askanam lu yaatu ñu ci jara taxaw yépp daanaka taxaw nañ ci ñoom wax ci wax ci gën a wax ci loxo yi nga xam ne jaar na ko moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba fiñ mujjee woon mooy dénkaane bi nga xam ne maamam Abdul Muttalib nga xam ne moom it wax nañ ci moom lu yaatu moo ko dénkaane woon lu jiitu muy wàcc bu liggéey lu jiitu muy faatu wax ne daal Muhammadu mii daa bëggoon bu fi jógee mu jox ko Abu Taalib mi nga xam ne doomam la moo ko ci doy jotaay mujj bi yaakaar naa ñu ngi doon wax ci diggante Abu Talib bi nekkee ci loxo yi Abu Talib bi mu yoree yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxtaan nañ ci lu yaatu sax ba wax ci génn gam njëkk a génn moom Abu Talib ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa wuti woon Shaam la ca xew ak na mujjeeg la fa feeñ ci xeeti kawtéef yu baree bare bari loolu moo nekkoon fi ñu tëjee woon jataay bee ñu génnoon kon tey dañuy sofalewaat rek di waxaat bi mu nekkee ci loxo yi Abu Taalib mi nga xam ne moom it taxawoon nañ ci moom wax ci moom euh, la ca xewaat ci xeeti xew-xew yoo xam ne euh, des na ko tudd ci jataay bii nii ak ci jataay yele di ñëw insha allahu taala kon moom yonent bi nag jaar na ci ay métier yu bari métier mi nga xam ne moo gën a fés ci métier mi mu jaar mooy sàmm sàmmuk jur loolu mooy métier mi nga xam ne gën na ci fés xam na xadis sax bu naan métier mu sàmm day métier la moo xam ne mboolem yonent yi fi jaar yépp jaar nañ ci kon jaar na ci métier sàmm lenn ci nettalikat yi sax dañ naan loolu yi di méccam sàmm moom lu jiitu muy nekk ci loxoy abu taalib doon na ko def ba mu nekkee tu tànk rek nekkoon ca xare euh, ca ya boobu mu nga xam ne doon naa ko tudd muy banu saad ca loxoy alimatu saadiya boobu la ko tàmbali a def waaye wér na te siiw na ne jaar na ci bi nga xamee ne abu taalib mi ngi gën di jëm mag nag Abu Talib ak Abdul Muttalib bokkule wuñ woon aw nekkiin Abdul Muttalib ku woomaloon la ku bari woon alal la waaye Abu Talib moom yàlla dafa defoon mu nekkoon koo xam ne euh, ku ñàkk la woon demewutoon noonu daal ak dundam ak ak am koomam bi nga xamee ne yonent bi mi ngi gën di jëm mag ñaar fukki atam mi ngi tàmbalee dugg ci la Abu Talib woo ko nag ko daal sañoon mu dugg ci wàllu liggéey euh, daan doole fekk sax ci étape yooyu mu tolloon yépp nekkoon waxambaane daanaka turu Muhammadu yi sax kenn waxatu ko dañoo mujjoon li gënoon a siiw ci moom mooy al amin mooy ku wóor ki ki nga xam ne daal mooy ku wóor ki ñépp loolu lañ ko doon dàkkantele ndax ni mu nekkee ndaw ba ni nekkee waxambaane noonu liñ ko xamoon mooy nit la woon koo xam ne daawut wax lu dëgg dëgg rek lay wax lu tooñ ba noppi wóor wóor lool kenn mësu koo xam ci ak jàppante ci dara loolu mooy li taxoon ñu tudde ko al yàlla defoon nit ku ko gisee rek bëgg ko jëmm ji meloon noo xam ne daal cib taar cib lewet ci makaarimul axlaax ku ko gis rek bëgg ko ku jëflante moom moom euh, duutoo amati sago ci jëmmam ji ci moom loolu lépp nekkoon na ci moom bi nga xamee ne mi ngi dugg ci bëgg a dugg ci wàllu commerce amoon soxna soo xam ne ñu ngi koy wax euh, xadijatu bintu xuwaylit xadija danaa ñëw ci moom lu yaatoo yaatu euh, xadija bintu xuwaylit nekkoon jigéen joo xam ne jigéen ju siiwoon lool la ci wàllu commerce ni mu siiwe woon ci wàllu commerce siiw ko ci daraja noonu la siiwe woon it ci makkaar mi wax laa moom Xadija doonoon koo xam ne daal euh, kenn yebu ko woon benn góor yebu ko woon ngir ak mbaaxam fonk boppam fonk liggéeyam xadija moomu kasalika ci xabila xuraysi la bokk yaayam di fatimatu bint zaid waajuram bu jigéen sax moom xadija day daje ak yonent bi sallallahu alayhi ci wàllu maam kon mbokkam la bala may ñëw ci commerce xadija xadijatu euh, lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xamanteeg moom bay jëflante moom ci lu jëm ci wàllu commerce Xadija amoon na ñaari nit ñu ko masa a yor euh, boo demee ci Ibnu Kasir ma ngay nett li waxi Zuhri moom it di nettalikat bu bu mag euh, nee na Xadija ñaari góor wala ñaari nit mas nañ koo yor ki ko njëkk a yor ci li gën a siiw mooy Atiq ibnu Haid ibnu Makhzum nee nañ kooku moo njëkk a yor soxna Khadija am naa moom benn doom bu tudd Hind waaw ki ko yor nag Abu Haala Atamimiyu mooy ki nga xam ne ginnaaw Atiq moo ko yor am na it ci nettalikat yi ñuy njëkk a wax ne Abu Haala moo ko yor waaye wuute ci ne ñaar ñi ñëpp mas nañ ko yor Abu mi it eh, ki mu moom abu xaala turam dëgg dëgg dëgg mooy hind hind kon abu xaala mi yor na ko ñaar ñi ñooy ñi ko njëkk yor moom soxna xadijatu ginnaaw ñaar ñi it bari na lool ay kilifa yoo xam ne yàgg nañoo ñëw ci moom di sàkku ci soxna xadija denc ko waaye da leen di gàntal bi nga xamee ne it Khadija it siiw na lool ci ay nit rawatina ay xale yu góor di ñëw mu leen di jox marchandise ñu dem jaay buñ ñëwee ñu sartante dara kenn ku ci nekk am loo ci am loolu moom siiwoon na ci lool bi mu siiwee ci loolu it ci la yónnent bi ne yëg turu soxna Khadija ak ni muy liggéeyee mu ne dafa bëgg a dem pour jéem a daan dooleem booba it Khadija xamagu ko lool moom it xamagut xadija lool bi mu ñëwee mu boole kook benn xale bu ñu naan sara la ko booleel ngir ñu ànd dem commerce ji Maysara moom it lu bari sax ci nettalikat yi xulaamu Xadija lañ koy wax nee nañ daal moom as ngóorus Xadija la woon soo xam ne daanaka lu bari moom moo fa féete woon euh, Xadija moom Maysara moom it aw turam ci tur yi nettali yi yaatal tur yi waddoon ci ñi yaatal tur yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi mbirum may saram yi yaataluñ ci maanaam aw askanam ay jaar-jaaram daanaka buñ tuddee turam lu ci baree bari duñ ci sori mu boole ko may sara jox ko marchandise moo xam ne mu bari la lool mu àndak ak may sara wuti saam foofa yi daanaka ci tukki boobu mu jëmoon saam mooy ñaareelu génnam ndax bu ngeen fàttalikoo ca jotaay bale waxoon naa génn gam génnoon ànd ak Abu Taalib uti saam boobu mooy ñaareelu génnam bi nga xam ne moom la génnaat génn bu sori laa bëgg a wax mu ànd ak Maysara waaye xeeti kimtaan yi nga xam ne moom la Abu Taalib gisoon ak moom yu mel noonu moo feeñuwaat Maysara bokk na ci mooy niir woo xam ne da ko tiim di ko keral bokk na ci mooy raahib ba nga xam ne gisoon nañ ko mu àndoon ak euh, ba mu àndeek ak Abu Taalib muy labbe ba gisaan nañ ko euh, labbe ba yi lam ko waxaat booba ci njëkk njëkku gis nga xàmmewu ko waaye ba mu ko séenee mu toog ci garab goo xam ne daal garabu kiimaan la goo xam ne yàgg nañoo bàyyi xel ci garab gii nii yonent bi toog fa doon noppalu Euh, ci la labe bi laaj may sara ne ko xale ba la toog ca garab ga mooy kan mu ne ko kee day Muhammad la tuddu ci waa Màkka yi la bokk ci la ne ko na nga bàyyi xel bu baax ki nga àndal ndax garab gee mu toog kurutub yónente du fa toog euh, may sara it li ko jaaxal ci tukki bi yépp muy jàppandal gi maanaam daal luñ bëgg rek day jàppandal euh, tekki it lañ ñu ci marchandise lañ ko baaxoo woon a jaay ci ab temps wala ci ay waxtu wala ci ay bis dañ koo jaay ci diir bu gàtt Maysara yéemu lool ci nit ñi wala clients yi niñ bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne euh, lam yoroon lépp daal ci diir bu gàtt la ko jaay ak jëflante bu rafet bi nga xam ne jëflante na ko moom ci tukki bi Maysara euh, baaxug yonent bi yéem ko lool yéem ko lool nga xam ne bi ñu dellusee daa daal di nettali Xadija mboolem li nga xam ne gis na ko ci yoon wi ci ay kiimtaan ci baaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, li nga xam ne moom la ñu doon ko jaay ni mu jar ci diir su gàtta gàtta gàtta gàtt ak nit ñi jëflante bu rafet bi nga xam ne doon na ko jëflante nit ñi Euh, loolu bi mu amee nag Xadija yéemu lool ci yonent bi euh, ci mbaaxam geeg ak li muy dégg ci moom ci mbaax euh, Xadija daal di benn xaritam boo xam ne ñaare lu muy dugg rek da ciy diisoog moom muy koo xam ne daal déggoog moom lool kuñ naan Nafisa bintu Munya comme ni ko atabaqaatul kubra lim nu sax di nettile nee na mu woo Nafisa wax ko daal mbirum euh, ki nga xam ne si maanaam xale bu góor bi nga xam ne ñëw na ci societé bi di fi liggéey ñu baal ñu ci waxin waaye mu gën a leer rek euh, bi mu ci waxtaanee Nafisa daal mu xamal ko ne ko daal moom moom moom Xadija bu ko nangulee pare na pour nekk soxna donte sax seen diggante yi at sore na lool euh, ndax Xadija ba muy wax loolu boobu mu ngi ci ñeent fukki atam. te bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci fukki at eh, ñaar fukki ak juróom nga xam ne seen diggante ci ay at tolloon na ci fukki at ak juróom Nafisa ne moom mën naa mën naa dox yëf fi eh, Nafisa bintu Munya daal di dem ci yonent bi waxtaan ceeg moom eh, laaj ko ndax am na kum denc ak lu muy xaar daal ci denc soxna nee na nee na Nafisa bi waxee loolu yonent bi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dane ko euh, xañ na bëgg na ko waaye tolluwaayu jamono jamono ju naqari maanaam mbirum koppar daal bokk na ci li nga xam ne moo ko tee denc ci la ko Nafisa na ko bu nit ñëwee koo xam ne nii boroom jikko ju rafet la bokk ci askan wu rëy bu baax yor alal joo xam ne nii yéene na la ko su la joxoon boppam ne daa bëgg nga denc ko ndax danga ko denc sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw waaw mu ne ko soxna Khadija moo ma yónni ci yow moo ma wax lii ak lii ci la yónnent bi waxtaan ak kilifaam euh, kasaalika it soxna Khadija waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la war a waxtaanal ñëpp bi waxtaanee. suñu borom daal di dogal ak diggoo am ci am na ci nettalikat yi ñu naan euh, amru ibnu asad nga xam ne euh, bay bu ndaw la ci xadija moo fas sëy bi am na ñu ne ne amru ibnu xuwaylit mbokkam moo ko fas am na ñu ne xuwaylit ibnu asad ci boppam muy waajuru euh, muy waajuru xadija moo ko fas te loolu lañ jàpp ne mooy li gën a wér ndax moom la ibnu ishaqa wax kon daal di sëy bi daal di fasu sëy bi mi ngi fasu kon ci diggante génn gim génnoon dem saam génn gim génnoon dem saam ñaari weer rek lañ ci teg ñaari weer rek lañ ci teg euh, sëy bi daal di fasu kon sëy bi mi fasu yonent bi mi ngi am ñaar fukki at ak juróom Khadija soxna Khadijatu mi ngi am ñeent fukki seen diggante ci at Euh, di fukki at ak juróom nga xam ne dund nañ lu yàgga yàgga yàgga yàgga yàgg yonente bi soog a nekkub yonente suñ boroom it dogal diirub lu muy nekk ci nekk xadiija yonente bi sallallahu alayhi wasallam dencut benn soxna bu dul moom waaw suñ boroom it dogal mboolem njaboot gi nga xam ne yonente bi am na ko ñëpp soxna xadiija mooy seen yaay ba mu des kenn te kooka soxna Maariyatul Xibtiya mooy waajuram ca kanam danañ ko tudd danañ leeral it lu jëm ci waajuramu jigéen boobu soxna Xadija am moom njaboot bu dee ci jigéen ñi Zeynab Roqeya Umu Kaltuum ak Fatima ñeenti jigéen ñi la am moom bu dee ci góor ñi am na ak moom abdullahi ak xaasim mi nga xam ne mooy taawam looloo waral ñu daa dàkkantele yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abul xaasim abdullahi mi des na ko dàkkantele at tahir des na ko dàkkantele it at tayyib kon ñii la am ak moom ci ak njaboot njaboot gii yëpp nag nga xam ne moom la amoon gu jigéen gi moom euh, fekke nañ ci yonent ak seen waajur maanaam fekke nañ bi seen waajur nekk yonent bañ gëm ñoom ñëpp euh, dundaan nañ sax ba ànd ak ñañ war a àndal alul ba gàddaay jóge màkk dem Madinatul Munawwara waaye góor ñi moom ñoom ñëpp dañoo euh, faatu euh, lu jiitu muy nekk bu yonent mooy Qaasim mooy Abdullahi bu dee Ibrahim moom ca marxala madaniya ci étape bi mu nekkee Madinatul Munawwara la juddu te moom soxna Marie mooy waajuram bu jigéen njaboot gi yépp nag man nañ ne dund nañ lu yàgg yàgg yàgg rawatina soxna Fatima mi nga xam ne moom mooy ki mujj faatu ci njaboot gi yépp ndax fekke na lépp yonent bi maanaam fekke na marxala makkiya étape bu mag fekke na marxala madaniya étape bu madinatu munawwara fekke mboolem li xew ci yonent yi ci xew-xew yi nga xam ne xew na ci bi bi nekkee euh, Makka ak Madina yëpp mu fekke ko ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wuy jee boroomam nga xam ne ñaari weer lañ rawante moom Fatimatu euh, mi nga xam ne doom la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi lii yëpp ci étape bi nga xamee ne lu jiitu muy nekk yonent la waaye ci étape bi nga xamee ne it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci loxoy Abu taalib kon day mel ne bokk na ci xew-xew yi nga xam ne ci loxoy Abu Taalib la ko fekk muy denc gi nga xam ne wala sëy bi nga xam ne am na digganteem ak soxna Xadija daanaka xisab xisab euh, xisab sëy bi wala xisab denc gi euh, ni ma la ko waxee ci tënk rek moom la ko téere yi nettali yépp nettalee ci digganteem ak soxna Xadija bari na xew-xew yu bari nag yu baree bare bari bari yoo xam ne xew na ci euh, diggante ma Xadija lu jiitu yonent bi nekk bu yonent waaye xew na ci jamono ji muy nekk bu yonent loolu lépp ay étable la yoo xam ne nii incha allah taala waxtaan dana fa àgg waaye daal lu mënti xew mooy soxna Xadija mii moom euh, tidd la koo xam ne bariwaa na ay kilifa yoo xam ne ni ñoo xam ne ñoo ëpp daraja ñoo ëpp alal ci wàllug zahir nii rek ci jamono jooja ñoo ëpp alal ñoo ëpp aw ca jamono jooja yonent bi ñëwoon ci Xadija waaye Xadija xoolutoon alal xoolu aw tur xoolu it daraja li mu doon xool mooy jikko ju rafet melawu rafet loolu la doon xool ba ko gisee it xaaru kenn di ñëw ci moom wala mooy doxalee beneen doxalin moom ci boppam ba mu gisee la nga xam ne moom la taamu boroom këram mu mel noonu moom la taamu ci góor daa daa di jaar fa mu war a jaar ca loolu mooy yónni gi mu yónni xaritam bii di sa bintu Munya mu daat koy doxal mbir mi Xadija mi it askan wi ni ñuy waxe ne askan wi yonent bi sallallahu alayhi ci mën a jam askan wu la wu sell la kasaalika sox askanu soxna Xadija mi it noonu la doxe soxna Xadija ay jaar-jaaram kañ la faatu ci yan anam la faato ba yonent bi woote yan réaction la ci def ak diggante ak yonent bi sallallahu alayhi lu jiitu muy woote ak commerce bi bi yonent bi sallallahu alayhi ñëwee ci moom yooyu yëpp daanaka waxtaan la yoo xam ne nii ci suñ jataay yi ñu jëm lañ koy wax kon mbokk yi lii mooy jataayu juróom-ñaareel bi ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jataay bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee mboorum yonent bi sallallahu taala alayhi wa ñu ci doon ànd ak seen mbokk Mouhamadou Mourtada Sylla ak Serigne Abdou Khadre Bousso nga xam ne moo yore lu jëm ci wàllu jotaay yii nii ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat rendez-vous le 5 ba ñu jëm incha allahu taala ci yi nga xam ne ñu ngi ko jagleel sàng bu tedd bi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal imaamu imaamul mursaliin ma'an والأنبياء يقيهم في الجوى الغمما يوم القيامة تاتي الرسل قاطبة والأنبياء